أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام tey dars bi ñu ngi jël qissatu luut alayhi salaam ginnaaw ba ñu jeexalee ci ibrahim yàlla dogal na ci kàttanam ñu ngi tàmbali yonent yàlla luut muy yonent bu nga xam ne ci yonent yi gënoon am jafe-jafe ci seen woote luut ci la bokk lu ko waraloon mooy dafa daje woon ak jamono bu doy waar nit ñu yàqu mu daje ak génération yu ñàng ñàng ñàng yoo xam ne seen jëf ci mbon kenn mënu koo misaal luut moom mooy kan ulama u siira nee nañ luut ibnu haran ibnu taara ibnu axi ibrahim alayhi salaam luut haran mooy papaam haran kuñ naan taarax mooy papaam kooku nag doomu mbokku ibrahim la magam wala rakkam lan moo tax ñu tuddee luut luut wa innama subiya luutan li anna hubbuhu laata fi qalbi ibrahim alayhi salaam taallaqa bihi wa lahiqa bihi ibrahima alayhi salaam bëgg bi mu bëgg luut bëgg bu tar loolu moo tax ñu tuddee luut luut ndax bëgg bi ko ibrahima bëgg Ibrahima da ko bëggoon lool lan moo ko waral mooy kaana Lut alayhi salaam muaasiran li Ibrahim alayhi salaam wa huwa ibnu axiihi wa kaana Ibrahim alayhi salaam yuhibbu Luutan hubban shadidan Ibrahima ak Lut dañoo bokkoon génération ñoo bokkoon jamono Lut nekk doomu mbokk Ibrahim Ibrahima bëggoon ko lool bëgg bu tar amana Lut bi ammihi Ibrahim Lut ku gëmoon bàyyi taxam la Ibrahim maanaam kon Ibrahim bàyyi taxu Lut la suñ ne bàyyi tax lan mooy bàyyi tax bàyyi tax mooy papa bu ndaw ki bokk ak sa papa mooy sa baay tax moo xam ku mag la moo xam ku ndaw nijaay yaay lay bokkal amma baay tax mi ngi bokk ak papa kon Ibrahim nekkoon na baay taxu luut luut tamit gëmoon na Ibrahim bi Ibrahima tàmbalee woote ñi ko njëkk a gëm ci kaw suuf luut ci la bokk waxtada bi hadiyihi wa saara ala darbihi luut juboon na ci woote ibrahima alayhi salaam déggaloon na ko nangoon na koo topp bal sax gëmoon na ko luut gëmoon ibrahim la ci mbooloo ibrahima la bokkoon kama zakara allah taala fi alquran comme niñ ko yàlla nettalee fa aamana lahu luut wa qaala inni muhaajiran ila rabbi innahu huwa al-azizu al-hakim suratu al-ankabut aya 26 borom bi subhaanahu wa taala mu ngi nettali gëm gi nga xam ne luut gëmoon na ko ibrahim yàlla mu ne fa aamana lahu luut luut gëmoon na ibrahim bi Ibrahima laxasee ay bagaasam di gàddaay lut àndoon naag moom wa qaala inni muhaajiran ila rabbi lut laxasoon nay bagaasam takku ànd ak ibrahim ñoom ñaar ñu gàddaay waaye jëm ci seen borom gis ngeen baatu gàddaay muy alhijra muy gàddaay li ëpp ci ñun li tax duñ ci sori mooy intiqaalun min al balad ila al balad lañ koy lañ koy lañ koy tuddee ñun amma gàddaay dëgg mooy nga gàddaay àddina gàddaay bànneexi bakkan gàddaay lépp jëm ci sa borom tabaraka wa taala loolu mooy alhijratu moo tax gis ngeen yonentu alayhi salatu wasalaam bi muy jàngale gàddaay ci xadisu innama al amalu bi niyat mu ne fa man kaana hijratu ila allahi wa rasulihi fa hijratu ila allahi wa rasulihi doomu aadama dafa war a tàmm di gàddaay dem di dem ci boromam te mooy nga gàddaay àdduna gàddaay li fi nekk ci ay poñet ci ay bànneex ci lépp loo xam ne daf lay gàllankoor di la gàllankoor di la jàpp ba doo dem ci yàlla instant bii ñu toll ku gàddaayul doo dem ci yàlla ndax li fiy jàppaate dafa bari luut moom da ngeen bi muy gàddaay lu mu wax inni muhaajirun ila rabbi maa ngi gàddaay fan laa jëm ci sama borom innahu huwa al azizul hakim moom sama boroom mooy ki not ci nguuram mooy ku xereñ li mu def rek noonu la al aziz mooy ku not ci nguuram ki nga xam ne nguuram gi kenn du ci def lu ko neexul lool mooy al aziz koo xam ne nguuram gi lu ko ci neex rek mooy am loolu mooy al aziz al hakim mooy ku xereñ koo xam ne lu mu def noonu la yàlla lu mu def noonu la hakim lu mu def rek noonu la misaal xoolal sa bopp gis nga sa bopp xoolal sa nopp yi fi mu nekk ndax da nga naan sama nopp yi de warul woon nekk fii nga xool yow fi nga bëgg foofu la nopp yi waroon nekk ñu jéem la ko faa placeel nga xool xoolal sa bët yi fu mu nekk nga ni bët yi daal bu ma yàlla tàggu woon du ma ko defal fii acca bismillah proposel fan lañ la koy defal xoolal sa bakkan bi xoolal gémmiñ gi xoolal loxo yi nga ni loxo yi warul woon nekk fi mu nekk ñu ne la fu mu waroon nekk nga ni bu ñu ma ko defaloon ci suuf tànk yi yéeg ci kaw loolu mooy hakim hakim mooy koo xam ne lim def ku ñëw xool lim def daanaan lim def nii la tey boo indi woon benn architecte ci biir jàkk ci mu ñëw xool léegi mu commencé laa génneel ay erreur ci biir tabax bi boo gisoon benn ingénieur u tailleur yére bi nga sol léegi mu ñëw ne la yére bi ki ko ñëw mënul ñëw amma allahu subhanahu wa taala lu mu def kenn ñu mënul ñëw munoo indi benn expert mu ñëw di xool xoolal asamaan moo tax yàlla bu muy wax mu ne xool leen asamaan kan la wax xool leen asamaan nga xool mu ne la su marji il basar karratayni yanqalibu ilayka al basar xaasi'an wa huwa xasir xoolal rek doo fa gis dara de doo fa gis erreur de sa bëri day delluwaat rek torox doo gis jafe-jafe doo gis manqué manqué ci li yàlla defar loolu mooy xakim mooy lu mu def noonu xaraja lut alayhi salaam min ardi babil fi fi l iraq ma ammihi ibrahim taabian lahu ala diinihi muhaajiran maahu ila sham luut ba ibrahima laxasee takku di wëri barab bu muy jaamoo yàlla barab bu muy wéetale yàlla kennale yàlla maadaama xatal nañ ko ci benn dëkk bu tudd baabil ngeen baabil moo ngi iraq foofu la ibrahima tàmbalee woote ñu xatal ko mu daje faa guur bu saay-saay bu tudd namruus wala namruud ci iraq ibrahima jël ay bagaasam départ lut jël ay bagaasam topp ko taabian lahu ala ala diinihi mu topp ko ci diineem topp ko rek ci gàddaay parce que yaa ngi dem maa ngi dem non daf ko topp ci imaan ci ngëm ñoom ñaar ñoo bokk lu ñu gëm ñoo gëm benn borom muhaajiran maahu mu gàddaay ànd ak moom bi ñu jógee Baabil fan lañ dem ñu ngi dem dëkk bu tudd Saam ñu déparé encore Saam dem dëkk bu tudd Misra mooy Égypte ñu daal di déparaat Égypte delluwaat Saam mu daal di déparaat Saam moom Ibrahim jëm Palestine ci yoon bi bi ñuy dem ci la Luut takk benn dëkk bu tudd Ordon moom ngeen dégg tey ñu naan Ordon fala fala ah Jordanie foofu la Luut resté moom àndul ak Ibrahim Palestine ci dëkk boobu tudd Ordon muy Jordanie fala ko yàlla tànnee moom Luut def ko yonent ci benn dëkk bu tudd Sadum dëkk bi mooy dëkk bi gën a yées ci àddina Sadum dëkk bi gën a bon ci àdduna bi mooy dëkk bi dëkk bi gën a yées ci àdduna mooy dëkk bi bu na doon laaj ban dëkk gën a bon ci dëkk bi waxal Sadum lu tax bàkkaar bi gën a yées ci àdduna te mooy am nguur jigéen ci dëkk bi la juddoo góor ak góor di sëy góor jàpp góor di ko jabaroo ci dëkk bi la sosoo yàlla tànn luut daal di koy yónni ci dëkk bi wa kaana ahluha zawil axlaaq faasida seen jikko seen melokaan melokaan bu bon la woon bu yées lu tax mais ay góor jigéen lañ nga góor jigéen moom mënul baax nit mënul nekk góor jigéen ba pare baax comme ni ko waa Sénégal gëmi Sénégal moom gëm nañ nit mën na fi nekk góor jigéen baax da ngay dégg ñu ne góor jigéen la mais nag vraiment yóbbu na yaayam màkk waaw xoolal nekk góor jigéen ba pare ñu ne ku baax la inna lillahi Sénégal moom boo amee xaalis rek ku baax la ma del maye rek de am xaalis rek di maye ku baax nga waaw ku nekk ku bon nga rek danañ ko rey bis boo fi amee xaalis di maye ay ku rep ba ne kii ku bon donte doo jaamu yàlla yow da ngaa baax xoolal nit mu muy nekk góor jigéen ba pare ah nga dégg ñu naan pourtant sëriñ jiw mooy sëriñam te xam na ne góor jigéen la mais wax ko dara kon yéen da ngeen war a maandu parce que sëriñ bi dafa ëmb sànqalam wala fi nee nañ ko ëmb sa sànqal ëmb sa kersa sëriñ bi li ko teree wax mooy chèque yi ñu koy jox ko ëmb sa sànqal ëmb sa kersa su ngeen gisee Sénégal sëriñ si duñ wax duñu critiquer taalibe yi c'est parce que dañoo ëmb seen sànqal taalibe boo xam ne ci mooy yàlla la nekk mais li muy indi du manqué kooku nee ko te waxal de te nag du indi lu ndaw te saa yoo amee lu ngand mu jàpp ci kooku du neex a waxal wala gars yi xool ko ci suñu kër yi sax waxuma taalibe de suñu kër yi sax gis nga ñiy jaay seen bopp di joxe dépasse munoo fexe ba paa bi ne ndey mii di nangam nangam de dangay munal xoolal bàyyi jàmbur bu bonee nu ngi may dimbali dépasse bi du manqué mooy fay courant di fay ndox bonal mel ni moom bonal mel ni moom gis nga de loolu laa la wax bonal mel ni moom parce que ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa loolu mooy nature doomu aadama saa yu ñu lay jox doo wax soo gisee yonent yi yàlla yónni leen ba pare yàlla joxoñ leen ci alquran ne ittabiu man laa yasalukum ajaran wa hum muhtadun laaj leen topp leen ñoo xam ne duñ leen laaj duñ leen laaj képp ku ñuy topp ñuy la ngay laaj dootoo wax dëgg parce que affaire bi day am intérêt dama lay topp nga may laaj bu yàggee ci topp gi ma ciy boole leneen te doo wax waaw waaw doo wax c'est parce que dama la amal intérêt nga amal ma intérêt te mbirum diine nag intérêt da ci amul parce que mbirum yàlla la subhanahu wa taala moo tax mu ne yàlla subhanahu wa taala yónni na luut yonent ci dëkk bu tudd Sadum ñu nekkoon borom jikko yu ñaaw yu bon ñu nekkoon ay borom yéene yu yées seen yéene dara baaxu ci lan mooy seen yéene mooy fu ñu gis góor jabaroo ko amuñu aajo ci jigéen soxlawuñu jigéen ñoom bu ñu giseen jigéen sax seen xel day tey góor rek ay buñ la gisee nga rafet ñu commencé piisante naan nii nga gis seen tension yi monté xam nga góor nature ni ko yàlla bindee mooy bu gisee jigéen ju rafet di ko xool wala mu séq ak moom yaramam day yëngu ñoom nag mbir moomu ci góor la leen di jural góor ndax mbon gu ñu bon yées gu ñu yées munuñu woon munuñu woon bàyyi munuñu woon toog ca defuñu bàkkaar munuñu ko woon munuñu woon gis kuy def lu bon ñu tere ko jamais seen jikko dafa yàqu ba munuñu toog defuñu bàkkaar bàkkaar munuñu toog une minute buñ ko deful au contraire sax munuñu ko tere bal dañ koy encourager moo tax yàlla mu ne fa faaluhu wa kaanu min afjari naas nekkoon nañ ñi gën a bon ci nit ñi ñoom waa Sadum min afjari naas ñi gën a kaccoori ci àdduna mooy waa Sadum ñi gën a yées ci kaw suuf mooy waa Sadum aqbahuhum siira ñoo gën a bon histoire ci histoire u àdduna yépp loolu doy na ci misaal rek di ngeen gis aaya yi ci kanam lu tax ñu gën a bon ci àdduna mooy xoolal ni leen yàlla alage di leen yàlla di alak dafa yónni jibril jibril ñëw di diqi suuf si yóbbu ko ba kaw asamaan tourné ko amul benn dëkk bu ñu alage noonu ci kaw suuf lu dul waa Sadum ndax bon gu ñu bon maanaa yàlla bi mu leen di alak même suuf si ñu nekkoon ci kaw yàlla dafay jële suuf si changé ko suuf si fi ñu doon dox comme lii ci kaw ñu toog yàlla da koo changé dafa juutal suuf si li nekkoon ci suuf moom la tegaat ci kaw li nekkoon ci kaw nekkaat ci biir ndax mbon gu ñu bon nga loolu musul am fen mu ne jaal na aliyaha saafilaha yamu ci de ba pare yàlla tawaat seen kaw ay xeer ndax bon gu ñu bon moo tax mu ne min afjari nnaas wa aqbahum siira wa axbatuhum sariir mbokk yi waa Sadum ñu bonoon ay melokaan lañ yemuñu woon ci ngóor jigéen rek waaye kaanu yaqta'uuna tariq dañ daan agressé moo tax gis nga bakkaar li tax l'islam bi ñu ko tere mooy boo tàmbalee benn soo tàmbalee ci yu ndaw yi xam nga foo jëm ci yu mag yu mag yi boo ci duggee da nga koy xeeb da ngay dem rek di xotti di xotti rek ba ba nga egg terminus nag dootoo taxaw moo tax bàkkaar baaxul moo tax ñu lay tere yu ndaw yi parce que ñàkk def yu ndaw yi moo lay aar doo def yu mag yi mais booy dugg ci yu ndaw yi da ngay dem ba jàng ne ah waaye xaaral ma essayé nag comme man na yu ndaw yi jeexal naa leen xaaral ma song yu ah mbër yi fi mbër yi commencé fu ñuy commencé du mbapat bu ñu bëree mbapat ba daan fu ñu jëm ñu indi leen ñu dëgg doomu ñi bu ñu digg doomu ñu jeexee lu ñuy wax non man léegi ñu mag ñi rek aha loolu mooy bakkaar yi moo tax ñu lay mooy tandikuloo bakkaar yu ndaw yi mooy tandikuloo mën soo ko bàyyiwul di def misaal gis nga njaaloo ngay xool ba càng nga commencé di wax fa nazaratun ibtisaama mu ne xool après muuñ muuñ sooy xool jigéen ba mu commencé la intéressé da ngay saa yoo ko xoolee mu xoolee da ngay muuñ si mu si fakkalaamu nga commencé waaw ça va ok ça va est-ce que mun naa am sa numéro waaw xam nga doo bàyyi de ba nga composé allo ne la waaw ah waaw yow nangam commencé gis nga fakkalaamu xam nga wax ngeen fa mawid mu ne rendez-vous ñëw nga woo yow la waaw foo dëkk place sàngam est-ce que jour sàngam mun naa la seet si waaw rendez-vous ñëw na fa mawidun fa liqaaw bu rendez-vous amee lan mooy am daje daje fa liqaaun daja am bu daja amee luy am laa yaxluwanna rajulu bimraa illa kaana saalisahuma shaytaan yeneen bi ne na góor ji góor ak jigéen du ñu wéet illa kaana saalisahuma shaytaan lu shaytaan ak ñettal leen moo tax fooy wéet bul fa wéet mukk fuy tëju bul fa wéet mukk fuy lëndëm bul fa wéet mukk fu kenn nekkul sinon seytaane ñetteel leen parce que doomu aadama kese nga inna seytaan tajri ala nu aadama majra dem seytaane day daw ci yaram doomu aadama comme deret bi ni muy dawee moo tax ñii ñu nekk ñu gën a yées ci àdduna waa Sadum yemuñu woon ci yées rek waaye dañ doon agressé sax di dog dog nit ñi di nangu lu ñu yor wa yatarabasuna li kulli saari képp kuy dox nekk commerçant dañ lay dab nangu li nga yor waaw di wàcc ci xur yu nekk nag daanaka daal mun nga ne ñoom mboolem melokaan yu yées yu ñuy xase nit yu ñuy ñàkk a nawe nit nitu luut yi boole nañ ko lépp lañ def bàyyiwuñ dara nit ku ñu song torox loola jooy loola nangu li nga yor gàcce loola loolu moo doon seen métier te loolu buñ koy def amuñ ci sàmmuñ ci woon diine sàmmuñ ci woon ngor sàmmuñ ci woon jom parce que léeg-léeg nga gis ay nit yoo xam ne diine moo leen teree def dara soo waaye mu ne wu man du ma def loolu lu tax doo ko def parce que sama diine moo ma ko tere léeg-léeg nga dégg ku ne non man du ma def loolu ñu lu tax mu ne man waaw man may gor gor du def loolu léeg-léeg nga dégg kenn mu ne lu tax doo def lii mu ne du ma ko def lu tax parce que man dama am jom ñun suñu famille kenn deful lii du ma ko def moo tax gis nga Hind jabaru Abu Sufyan boobu yéeféer la de bi mu déggee aaya wàcc yàlla di jaayanteeg julli di jigéen yi iza jaaka al mu'minaat aaya bi mu wàccee Hind dégg ko ci biir aaya bi yàlla naan jigéen ñi bu ñu njaaloo mu ne atasnil xur ndax gor day njaaloo boobu yéeféer la moom ndaw si mu dégg yàlla naan jigéenu jullit bu mu njaaloo hindi dafa jaaxle naan dégg naa yàlla Muhammad naan jigéen yi bu ñu njaaloo est-ce que gor dina njaaloo gor allahu akbar ñun boo ñëwee Sénégal daan ñooy njaaloo waxuma gor yi waaye jullit yi te xoolal kee waxul diine de mbirum mbirum gor ak deret la doon wax der ak gor ak am na famille yoo xam ne da ngay dégg ñu ne ñun lii duñ ko def parce que famille sunu famille kenn musu koo def waxuma diine de waxuma sax diine mais seen famille rek da ngay dégg ñu ne ñun sunu deret lii kenn musu ko fee def lii kenn du ko fee def mos nañu wax benn xale bu jigéen bu benn mbokk bëggoon ki ko bëgg nekk tëgg ñu dem seen kër papa am na ñun suñu xeet kenn musul sëy ak tëgg du ma ko def wala ak tëgg te pourtant diine bañu ko ne mais seen famille rek la ñuy wax kon dafa am mbir yoo xam ne doomu aadama diine la ci seet du ko def waaye ñii amuñu woon diine donte ne am na yonent bu yàlla wàcce woon ci ñoom waaye wala yasudduhum xayaaun yenn saa yi sax nit du bañ a nit dina bañ a am diine nit dina bañ a am ngor nit dina bañ a am mais nit am kersa waaye lu tax ñu ne la lii wax ko waxoo ko ne non loolu mënu ma ko wax ci biir nit ñi nag parce que dafa am kersa waaye lu tax yow lii soloo ko mu ne lii mënu ma ko sol parce que kersa moo tax gis nga diine di ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax mu ne mooy kersa ku amatul kersa rek amoo diine ku amatul kersa amoo diine da ngay jàng sax ñu ne la kersa ci gëm yàlla la bokk alxaya min al iman ku am kersa rek da ngay fekk mu am iman mais ku amatul kersa pare nga ñii nag seen kersa moo jeex amuñu diine amuñu ngor amuñu jom moo tax mbooleem bàkkaar yi raatale nañ ko waaye yemuñu foofu wala yastamicuuna linnasiha min aqilin yenu na maana ku amul diine amoo ngor amoo jom amoo kersa est ce que buñ la laajee biir di nga ko déglu ah gis nga lii nii ñuy wax tey ci société Sadoum loolu moo ñu dal ñun waa Sénégal léegi dem nañ ba nit ñi boo leen waaratee dootuñu déglu xam nga lu ko waral parce que amuñu diine amuñu ngor amuñu jom amuñu kersa moo tax da ngay wax ak nit ne ko yàlla mu ne la ah misaal rek jëlal fekkal ndaw su mees fukki paquet nga ne ko yow mees araam laa nga am na nga mu xam nga lu muy wax yëg dindi kaala gi ne la safu la yëngal ko ne la safu la wala la déggu leen loolu yëpp wala na fekk mu gis mu sol lu bon yarama mi nekk ci biti nga ne ko ah subhanallah mbokk mu ne la yaa ko xool de xoolu la boo ko xoolu woon doo ko gis noo def ba gis ko maanaam mooy kersa yi moo jeex kersa kersa bu jeexee ci ay société alku nañ kenn dootul wax ñu dégg gis nga fi mu nekk nii kenn dootul wax Sénégal nit ñi dégg c'est parce que kersa moo fi jeex nit ñi amuñu diine amuñu ngor amuñu jom amuñu kersa loolu moo tax soo leen laayee biir duñu dégg laayee biir mooy lan mooy waaraate nga jël nit di ko yedd bu njëkk ba su nit defee lu bon soo ko waaree rek mu mu ragal yàlla parce que am na lu desoon fitra desoon na loolu ñu naan fitra kersa desoon na ngor desoon na jom desoon na soo ko waxee rek nit ki daal di dellu siwaat mais tey waaw da ngay wax ba sa biir bi métti da ngay wax ba sa gémmiñ gi booy waaw nit ñi ni la ñuy def naan samina lan moo ci waroon tegu waataane ne samina wa asayna dégg nañ de waaw dégg dégg ne pare nga ñu naaw ñu ne pare nga ñu naaw defuñu ko innahum unaasun yatataharuun nee na laqad daahum lut lut woona leen alayhi salaam ila ibadatillahi gis nga de li mu njëkk a def mooy woo leen pour ñu jaamu yàlla xam nga lu tax mission yonent yi yonent bu ñëw rek bu ñëwee li muy njëkk a def mooy ci woote ci jaamu yàlla lay woote xam ngeen lu tax jaamu yàlla mooy tere nit def lu bon mboolem jaamu yàlla yi yaa ayuha nnaas ibudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laallakum tattaqun ibaada julli koor joxe azaka dem màkka saraxe jàng alquran zikr lu mu mën a doon xam nga lu mu lay jural soo koy def mooy def lay jural ragal yàlla moo tax yonent bu ñëw sa première mission ci kaw suuf mooy fexe nit ñi jaamu yàlla bàyyi leneen jaamu leneen bàyyi topp leneen bàyyi ñaan leneen nañu fexe ba ñu xam yàlla ba pare jeex na ku xam yàlla leneen indi ko ci leneen day day yomb mais ku xamul yàlla doo mën a topp keneen doo mën a baaxal leneen jàngeen alxuraan yàlla di tere jullit bu góor mu takk jullit bu mu takk jigéen juy bokkaale ngeen jàng ci aaya ba tey yàlla di tere jullit bu jigéen bokkaale kat takk ko te loolu yenu na maanaa de góor guy bokkaale bu takkee jigéen it bokkaale kooko keneen jigéen juy bokkaale bu amee jëkkër it bokkaale jëkkëram ak keneen d'accordu leen yàlla ku ko ragalul ba koy bokkaale keneen xam nga ne kuy bokkaale yàlla dina la bokkaale góor loolu moo tax da ngay gis sunu sunu buxaaba yi jigéen ñëw ne ko dama man dama am problème ak sama jëkkër luy ne sama jëkkër dafa commencé léegi ah di guddi àll wala di doxaan wala dégg naa dafa bëgg a takk damaa bëgg nga yeeb nangam nangam xam nga sëriñ boobu fu muy mujjee ak sa jabar muy sëy ak moom ah ci koor gi am na benn mbokk fi doon ñëw ci tafsir yi posé woon na question ne ma benn buxaaba moo ma dëddaleeg sama jabar xam nga bi ñu waree léegi nii loolu la ma wax semaine bi passé ma gis ko fi xam nga lu mu wax sëriñ bi takk na ko soxna si tas na ba mu takk te instant bi soxna si jabaru sëriñ ba la takk na ndaw si la dëddale waa sa simple ndaw si dem na ci sëriñ bi ne ko vingt ans sëy naa ak sama sëriñ sama jëkkër amuñu doom dama bëgg nga dimbali ñu mu koy jox ay affaire ndeke affaire yooyu mu koy jox du question na am doom de mooy da koy dëddaleeg waa ji noonu la ñuy def ay bandi lañ defe ñu ne ay sëriñ ay bandi lañ laa wax te gis nga loolu fekk xeexuñu ko ci société bi mu jeex fi mbon gi ñu gis du jeex parce que ñooñu ay yàqkat lañ soo déggee yoneen islam mu ne ñooñu jaasi ci bopp rek jaasi yàq rek mooy seen atte jaasi lan mooy lan mooy xaddu saahir as sayf jaasi rek ku yàq société dañ la war a jëlee ci société agresseur reykatu nit bu xaaba jaasi rek moo tax lis- société l'islam day raxas société ba mu set képp ku yàq dañ la fiy jële pompiteer bu nëb bu ñu ko bàyyee ci biir saaku bi lu muy def yàq xoolal léegi façon moo jox leen misaal rek reyante rey nit rey nit chaque jour boo xëyee Sénégal li nga dégg ku ñu rey démb dégg ngeen xale bi ñu rey fii Gunaas ñaari xale yi ndaw ñoo ko rey ba léegi kenn gisagu leen ah ah ku am 20 ans kay ku amul 20 ans kay xale bu ndaw la ku ñu rey am 20 ans la am da ngay wax rek ñu def indi paaka wala butéel dama dama koy kil dama koy ja di dof dof lu lan moo waral loolu lu waral loolu mooy après dañ lay yóbbu fii yóbbu la 100 mètres nga nekk fa di entraîner di lekk ceeb di seetaan télé di sangu doo fay courant doo fay ndox génnaat waaw da nga dégg kuy génne ba wax la waaye sama chambre bu ko kenn kii dem ñëw rak tak wala du ngay déggu leen loolu dama lay rey dem tëdd ñëwaat dara loolu ngay dégg nit ñi di wax bu fekkoon ne boo reyee nit ñu la ci esaat bii yeew sa loxo yi ci ginnaaw yeew sa tànk yi en genou la jël jaasi dagg sa bopp bi ñëpp di xool wala ñu jël bal dóor ko ci sa bopp bi bopp bi toj ñëpp xool ëllëg ak si biir boo waxee nit doo jël sax bant bale waxuma la ak dem naa da ngay jël jaasi wala paaka di ko koñ loolu mooy aar nit ñi ku rey nit nañ ko rey day reyaat dañ ko rey rek mu jóge fi mais ñu rey la ñu dem yóbbu la fee ñu jëlal lay avocat say mbokk cotisé ah 3 mois 2 ans 4 ans ñu génne la nga nekk fii ci mbedd yi di tamambalu waaw yor sa jaasi su ko defee nit ñi di la daw waaw nga ñëw fekk njaayi jàmbur nga jël ko ku wax nga génne jaasi ne nii ñu ne ah lay rey rek bàyyi ko rek boo ko tuuxee léegi mu rey la waaw léegi loolu mooy la léegi waa jooju noonu lañ koy mujj a bàyyee amoon nañ benn waaye bu ñu dëkkaloon ci benn koñ bu nee tël day jël seize bi teg ci diggu mbedd bi ne baare naa koñ bi nga gis nit ñi di wiiri noonu la koy defee de baare naa koñ bi nit ñi di wiiri ku ne tël rek wiiri ah kudd sama jàmm xaw ma xaw ma sama kudd jàmm la ràcc waaw dama wiiri wallaay loolu mooy la fu mu mujjee mooy mu jël benn xale bu jigéen bu ndaw bu doon jënd glace seen kër kër gi kenn nekk fa mu dugal xale bu jigéen bi ci biir kër gi rendi ko tàggate ko def ko ci saal da nga déggoon nga ni soir gas ba mu xóot ci terrain bi bàyyi ba guddi heure yi mu koy suul fee xale bi yelloo nañ ko wër soo ba mën gisuñu ko ndeke rey na ko bu yàgg xalal loolu waaw gis na gis ngeen moo tax islaam moo wax dëgg fekk nanguwuñu loolu li yàlla wax ñu def ko ci ci ay tolof tolof rek la ñuy parce que ala yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir tubaab bi defar oto bi ba pare daa ci def benn catalogue wala télé bi wala appareil bi même portable bi nga yor am na catalogue tey bu appareil bi amee problème ci catalogue bi ngay delloo yàlla bi mbindee doomu aadama xam ngeen lan mooy catalogue bi mooy alquran pour doomu aadama baax jub mën a normal ci kaw suuf si alquran bi rek moo ko mën leneen mënu ko indi leen leneen mënu ko booto bi yàqoo yóbbu ko yóbbu ko hôpital principal ngarang ba yegg médecin ne la la nga ne sama oto bi dafa baal carburateur bi moo am problème luy xew nit ki feebar ngeen di ko ci mécanicien bi ne xoolal leen ma biir bi suba ba léegi biir bi day daw day am problème loolu mooy li ñuy dund nii dañu bàyyi li yàlla wax ñu jëma bi indi leneen moo tax dañu am problème rek ba àddina bi di jeex problème la ñuy am ndax yàlla moo ñu woon adduna bi nuñ koy réglé luut bu mu ñëwee li mu njëkk a wax def mooy daahum ila ibadatillahi wa nahaahum an itaati alfawahish mu tere leen def yu bon yu ñaaw yooyu góor di sëy ak góor jigéen di sëy ak jigéen tey da ngay dégg ñu ne la ay kilifa ci Sénégal ay kilifa wala nga dégg ñu ne yenn saa yi nga dégg benn waaye mu ne état bi ñëpp ay góor jigéen lañ te kenn doo xam te loolu yem na maanaam parce que góor jigéen buñ fi jàpp doo def ñaari weer ci kaso bi di commencé di menace nañ ma bàyyi wala moo wax rek gars yi bàyyi la ba pare may la billet ne la dawal fu la kenn gis dawal dem France wala Italie gis ngeen am na benn góor jigéen boo xam ne fu siiw mu ngi États-Unis actuellement te lañ ko génne mu daw dégg naa ay limousine ñoo ko teeru aéroport yóbbu ko Maison Blanche kon xam ngeen ne li gars yi di wax yenu na maanaa mooy réew mi ay góor jigéen ñoo ci ëpp wala ay góor jigéen ñoo ko jiiti waaw réew moo xam ne nag ay góor jigéen ak ay franc-maçon ñoo ko jiiti réew moom dina baax réew moom du baax fekkee ne ay franc-maçon ñoo ko jiite ak ay góor jigéen moo tax lu bon ñu bon lépp lu ñu jiite rek mu bon dara dootu fa baax mu ne wa ityaani zukuur tere na leen góor ak góor di sëy wa qat'i sabil ak di dogaale ci mbedd yi di dagg nit ñi di nangu lu ñu yor di leen menacer di rey di jël lu ñu yor loolu bi mu ñëwee lii la leen njëkk a tere walakin al mufajaa kanat kabira mais xam ngeen lan mooy surprise bi xam ngeen lan mooy mbetteel ci lim leen woo yëpp bàyyi leen lu bon ñëw leen ci lu baax lan mooy mbetteel lam yastajibu li daawati lxaq wuyu wuñu woote dëgg bi dañoo lànk fatt seeni nopp walam yuminu bi daawati luut gëmuñu woote luut ñu lànk bal lam yuminu minhum rajulun wahid ndeysaan bal lam yumin minhum rajulun wahid allahu akbar kii xanaa yonente bi saa sallam lim naan yowmal qiyam dina am yonent bu ne tël di dem ñu ne ah mu ne waaw mu ne waaye kenn topp ko moom doo nga cundum beneen yonent ne tël ñaari nit topp ko xoola lut kenn ku góor gëmu ko kenn gëmu ko doon nga dégg sax histoire noox ñu ne 40 personnes ñoo ko gëmoon ñooñu la dugaloon ci gaal gi fama amana lahu illa qalil lut moom lam yu'min minhum rajulun wahid kenn gëmu ko moom woote ba sonn ga kenn wuy sibu allahu akbar xam ne kon yonent yi sonn nañ walam yatruku ma nuhu anhu yemuñ ci bañ koo wuy si waaye la muy tere kenn bàyyiwu ko au contraire sax da doon tere ku naan sàngara nga gis ko dugg ci baar bi ne na ma sut tegale leen kees yi mu sut ma tey dañ la doon tere naan benn butel non non sama waa ji day sóob tegale leen kees yi mu sut ma tey man maay paye léeg-léeg ngay tere nit olof yi dañ naan ci ulama usul usul la ñuy jàngale ne bu fekkee ne nit ki day dafa yor pot di tëgg pot te soo ko teree pot bi sabar lay uti bàyyil pot bi waa ji day naan benn butéel sàngara soo ko teree kees lay jëndi bàyyi ko butéel bi bul ko jéem a teree gisoon naa benn jigéen boo xam ne dañ ko ne bàyyil mees mu ne mënumaa bàyyi mees ki ko doon waar ne ko boo bàyyiwul mees day jaratul ngay julli ndax boo jullee sa julli baaxul mu ne ma bàyyi julli gi mu bàyyi julli gi complètement mees yi moo ko gënal julli gi soo meesoo julli yàlla du ko nangu mu ne kon ma bàyyi julli gi kooku def caaxaan mu def ko dëgg toog juróomi fan julliwul yow tax julli woo mu ne ah du yow yaa ma ne suma meesoo yàlla du ko nangu te man sama mees yi pareeguma pour bàyyi ko ah bu ko yàlla bëggul noonu man noonu laa ko mu ne dama koy def ak mees yi bu ko bëggul ma bàyyi ko comme ça quoi kon kooku mënoon na koo bàyyi rek ak mees yi ba pare muy julli ah ñii nag ñoom it dañoo lànk bañ a bàyyi lañ leen doon tere waaye yemu ci bal istamarru ala xaalihim dañoo continuer ca la ñu nekkoon wa garaqu fi xayihim yemuñ ci sax mais dañ cee lab dañ cee lab lab dem ba lab ci lu bon li mooy comme ñun tey ni ñu labe ci lu bon rek yemuñ ci lab ci lu bon waaye dañ cee lab sànku ci wa asarru wamtanau an qubuli ayu kalaamin ñu continuer ci lànk bañ a déglu bañee ci nangu bépp wax bu baax dañ koo bañ loolu pourtant ci nitu lu di ngeen koy gis rek waaye am na ci suñu réew mi de ñoo xam ne dañoo lànk lànk lànk ba da ngay dégg ku ne ñun ci lii la ñuy dund ci la ñuy dee ci la ñuy tekk léeg-léeg sax nga dégg ku ne man bu ma duggee àjjana sax fekkuma fa ñii damay génn waaw jam salaat léeg-léeg nga dégg ko wax loolu waaw bu fekkee lii ko def dem safara man dama koy def naa dem safara xam nga yooyu riir weesuwul loolu yenn saa yi doomu aadama day wax wala mu jëf jëf yoo xam ne li tax mu def ko wala mu wax ko da ngay comprendre ne kii dafa riir rek waaw billaahi wallahi taala te réer li tax mu garaaw mooy bu la yàlla narul dimbali loo jiin da nga koy xeeb maanaam loo def da ngay xeeb boo amoon alal alal ji ci loolu lay jeex boo amoon doole doole ji ci lay jeex lépp lu la yàlla defaloon ci mën-mën wala kàttan boo moytul ci loolu ngay dee moo tax réer baaxul te lañ ci yàlla musal gis nga ñii ba ñu réeree sànq dañoo lab ci biir nuur ci ba jeex takk ñu daal di boycotté nangootuñu dégg fatt seen nopp lenn saa nga dégg benn waaye mu ne gis nga man rajo sàngam rek laay dégg damaa indi onde bi ba foofu dagg onde bi pour wala ne man du ma déglu leneen lu dul lii sama rajo bi damaa dagg onde bi du ma déglu leneen wala lu waral loolu mooy réer léegi bu fekkee ne yow loolu ngay déglu réer la nag réer la ñuy wax ci rajo boobu léegi yow fooy jëndee ki ko ci àdduna te ñu réer rek ñooy wax ak yow fan ngay jube dootoo jub ba yowmal xiyaamati ñaata yoon ngeen di dégg loolu ku dagg ondam am na koo xam ne day indi rajo bi ba ci musique bi dagg ko 24 heures sans am koo xam ne da koy indi ba ci benn rajo boo xamante ne ay dalaal rek moo fa nekk réer rek mu dagg ond bi ñenn ñu nekk ak lu leen neex ni mu amee ci rajo yi noonu la amee ci télé yi nga gis koo xam ne day ñëw ba ci télé bi gën a yiis ci télé yi mu daal di ko fay kal waaw yeneen seen yëpp mu crypté leen ba mu des benn parce que boobu mooy génne lu bon lim bëgg loolu musiba weesuwul loolu su doomu aadama eggee foofu nañ ko ñaanal yàlla yàlla bett ko ak yërmandeem mais sinon saye mbokk yi ñii continué nañ ci lu bon li ci yoonu mooy yàlla wa aaradu an luutin wa an daawati ñu dum mooy luut ñu dum mooyu ko complètement xam ngeen nuux moom gaa yi yemuñ ci woon ci dum mooyu ko waaye dañoo woowante daan ne kii bu leen ko déglu luut tamit xawoon naa yegg foofu dum mooyu woon nañ ko waaye dum mooyu wootee wa kaana seydina luut alayhi salaam bayyana qawmuhu bayna qawmihi yad'uuhum ila allahi subhanahu wa taala fa qaala lahum fi rahmatin wa rifqatin alla tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiun ndeysaan yonent yi xol yu set xol yu nooy xolu yërmande lañ am da ngay gis doomu aadama yi li ñu kàccoore kàccoore ak bàkkaar yi ni ñu bëree bëri maanaam yonent yi ñoom am nañ compréhension boo xam ne danañ comprendre ne ñii dañoo réer rek moo tax dañ leen di muñal ak xol yu ubbeeku yu yaatu xol ñii li ñuy yées yépp yonent yàlla lut découragé wul mi ngi taxaw di leen woo di leen woo ci yërmande mu ngi leen di woo ci langage bu rafet bu lewet xam nga lu mu leen wax allah tattaqun moo lu tere ngeen ragal yàlla lu tere ngeen xam ne inni man mii di wax ak yéen lakum rasulun amin man de benn waay laa boo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ma yónni ci yéen ngalla waay fattaqullaha ragal leen yàlla moom wa atiun ngeen topp ma wa nahaahum lut alayhi salaam an alfawahish wal munkar wa bayyana lahum anna al insan al aqil al mubsir laa yartakibu al fawahish wala yati al munkar abadan nuux leeralal na leen mu tere leen ay bakkaar mu tere leen ñaaw téef mu tere leen lu ñu sib mu leeral leen ne nit ku am xel kuy gis du fàggu ay bàkkaar du dajale yu ñu yu bon du dajale yu ñu sib fa qaala lahum mustankiran ataatuuna alfahishata wa antum tubsirun a innakum la taatuuna alrijala shahwatan min duni nnisa bal antum qawmun tajhalun ngalawaay yéen ñii ndax da ngeen di def ñaawteef bu bon bi te jamono bi ngeen koy def wa antum tubsirun yéen a ngi gis xam ngeen ne li ngeen di def jaaduwul góor ak góor di sëy ah góor ak góor di sëy foo gis ñaari góor di ko def lu ñuy def dañuy nëbbatu góor ak góor di def mariage foo gis ñu koy def dañuy nëbbatu kenn du ko siiwal public mos ngeen gis ci jàkk ñu ne dañuy maye tey ñaari góor ñuy sëy dañuy nëbbatu parce que lu bon la moo tax ñi koy def xam nañ ne ci lu bon lañ nekk et puis yàlla ni mu bindee góor góor mënul bànneexu ak góor mënul nekk mënul nekk mais bon bon mooy jàpp nit subhanallah la hawla wala quwwata illa billah góor ak góor simmeeku def yaramu leen di sëy yàlla utalu ko place ñoom ñaar fu ñuy sëy yàlla utalu ko place góor kan lañ ko utal compagnon bu muy àndal góor maanaam mooy ñaari paire paire xam ngeen paire comme ni ma amee ñaari dàll ñaari tànk ñaari loxo ñaari bët loolu mooy paire góor ak jigéen ñooy paire góor ak jigéen ñoo mën a ànd gis nga ñoom ñaar bu ñu àndee rek résultat day am lan mooy am ëmb ëmb amee luy ñëw comme résultat sëy ñëw mais góor ak góor jigéen ak jigéen bu jigéen ak jigéen doon sëy fan la ñuy jëlee doom góor ak góor di sëy fi ñuy jëlee kon adduna bi jeex na loolu kon du sunan mu laafil ard yàlla def ko pour góor ak góor di sëy jigéen ak jigéen di sëy yàlla dafa ne góor ak jigéen jigéen ak góor mu ne borom bi subhanahu wa taala nee na leen a innakum taatuna rijal shahwatan min duni nisa ndax yéen yéen waa Sadum da ngeen di indi góor di ut bànneex ci góor moroomam bàyyi jigéen góor amul sangu ba set sol yëreem amul fu mu jëm ndeke góor moroomam la joxanteel rendez-vous dara gënte yées lool bal antum qawmun tajhalun mara yàlla ne leen yéen ñu réer ngeen ñu sànku ngeen mbokk yi fii la ñuy yem insha allah ba àllarba bi ni ñëw ak jàmm li des ci histoire bi insha allah ñu eggali ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñoo ngi ba tey ci histoire yonent yàlla luut alayhi salaam tolloon nañ fi luut tàmbalee woote waaye yàlla natt ko mu dajeeg ay nit yu dëgër bopp bokk na ci li gën a doy waar ñoom nitu luut yi seeni mbir mooy saahum an yakuna baynahum rajulun taahir li gën a doy waar li leen jaaxal li yéem leen mooy ku set warul warul nekk ci biir société bi ku baax ku laab saahum an yakuna baynahum rajulun taahir laa yaasi llaha waaw da leen di jaaxal naka la benn nit mën a nekkee ci société doo mooy yàlla mooy tey liy xew li ngay dégg Sénégal yenn saa yi nga dégg ñu ne yow xale bu góor boo xam ne du baali doo déglu musique amoo ay jal doo dox mais yow mais mais yow nan ngay dundee yenn saa yi nga dégg ñu posé la genre question yooyu ñu taluut yi tamit daf leen jaaxaloon naka la nuut nekkee ñoom ba pare te du mooy yàlla affaire daf leen jaaxal naka la nekkee ñoom te du mooy yàlla waaye wala yartakibul fawaahish lan moo tax yow nga nekk fi te doo am bakkaar kaanat nufusuhum marida seeni bakkan moo feebaroon nag looloo tax mënuñu nangu luut nekk fi baax du mooy yàlla ndax bakkan yi ñoo feebar olof yi dañuy wax ne picc mu lakkum geen day bëgg picc yépp seen geen lakk ndax moom bosam kenn dootu ko xàmmee zannu anna rajulu naqiy at-tahir huwa rajulu lazi la yambari an yaisha baynahum bokk na ci njort yu ñu njaax njort woon jàpp ko ba gëm ko mooy ku melul ne nun warul dund ak nun waaw loolu lañ yaakaaroon ñu ne ku baaxul ku baax warul nekk ak ñoom la yambari an yaisha baynahum ku ku baax warul dund ci société bi ñuy dund ñun lan mooy fayu ku nekk ci suñu société ñun ñu bon yow nga bëgg a baax lan mooy sa fay mooy fayakunu jazaahu attard wa nafyu képp koo xam ne dangaa nekk ci suñu société jéemoo mel comme ñun nu nu mel jéemoo woote li nuy woote jéemoo gëm li nuy gëm ñun nan la ñuy jëflanteeg yow mooy dañ lay génne ci biir dëkk bi xam nga moo tax su ngeen jàngee histoire yonent yi waxoon nañ ci début histoire yonent yi avant ñuy indi benn yonent ñu ne jàng histoire yonent yi lan lay jëriñ mooy rabtul maadi min al xaadir wal xaadir lil mustaqbal da ngay jël démb nga préparé ko pour tey tey nga préparé ko pour suba mais gis nga boo jàngee histoire yonent yi da ngay gis ne yonent yi li ñu doon dund démb ñun moom la ñuy dund léegi amul différence wala bu amee différence bariwul ku am xel sax dëgg-dëgg am gis-gis day gis ne amul différence dara li yonent yi doon dund nafsu shay moom la ñuy dund tey ñaata nit ngay gis yenn saa yi ñu ne seen société résité leen c'est parce que lan ñoom dañoo baax dañu bëgg jaamu yàlla dañoo bëgg sellal dañoo bëgg dugg aljanna gis société bi lànk ci biir kër gi lay tàmbalee ci koñ bi lay tàmbalee ci mbedd mi ci biir dëkk bi ba fa ngay liggéeyee da ngay xat ñépp dafa am lu ñu lay xoolee am lu ñu lay gisee di la bàyyi xel te pourtant yow da ngaa bëgg a wax rek li nga bëgg a li ngay wax yépp mooy nañu nekk ci dëgg nañ def dëgg rek nañ topp dëgg bi da ngay gis nit ñi comme bëgguñoo topp dëgg dañ lay isolé ñu ne ñu ñu ne mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne luut wax na ba sonn pour jubal gaa yi ci dëgg walakin lam yuminu bihi siwa ahlahu faqat kenn gëmu ko ci waa këram walil asaf lam yumin bihi sax zawjatu jabaram sax ci boppam gëmul raxma zalika lam yay as saydina luut alayhi salaam kaana yaddu qawmahu duna malalin sanawatin tawila ndeysaan xoolal li yëpp li muy garaaw garaaw muy woote kenn gëmu ko jabaram sax gëmu ko mais terewul waa ji découragé découragé wul de ay ana yu takk ay at yu takk ay weer ay bés yu takk moom découragé wul benn yoon loolu moo lay wan ne yow mi woote ci yoonu yàlla doo découragé léeg-léeg nga dégg ko ne kenn ku ne non man pare naa ci pare naa ci wax naa ba sonn comme déggu leen man pare naa ci ah li ma doon waxoon naa ba see daal di noppi lem ngee dem toog ci gars yi nekk ci lu leen neex non du noonu kan moo la wax nga découragé yonent yàlla duuta ngi ni découragé wul kaana yadu qawmahu leneen daan continuer di woo yàlla mu ne duuna malalin tàyyalul yokkatul sanawaatin tawila ay at yu yàgg mu leen di woo wa haahum yastajiluuna al azab yenn saay sax mu ne leen bu ngeen gëmul yàlla tuubu leen mbugal dana wàcc gars yi xam nga lu ñu koy tontu mooy comme lu sénégalais di wax boo dee yàlla towal doj boo dee yàlla towal glace du ngeen koy dégg yenn saay boo dee yàlla tabardal asmaan mu daal yenn saay nga dégg ko ci biir réew mi ngay wax ak ay ay jeunes ñu ne xoolal waaye boo dee got waaye towal doj sa yaram day daw ay doj buñ ko towee foo jëm doj yenn saa yi rek ndox taw ay nit alku Sénégal di jooy ndox taw ay nit di jooy ay nit toog at yu nekk nii ay nit toog nañ lu tolloog ñaar fukki at dellu ñu fa ñu dëkkoon parce que ndox moo leen génne kon bu doon doj mooy taw nit ñi jëm mais nit ñi seenu mbon nit ñi dañuy dem yenn saa yi dañuy tàmm bon ba nga xam ne li ñuy wax sax duñ ci bàyyi xel dañuy wax lu leen neex comme gëmuñu yàlla wax ji day ñëw rek di sottee ko amul lu koy segg ku gëm yàlla moom la xelam di tànn loolu la war a wax lan laa war a wax lan laa war a def fan laa war a dem ku am xel ku gëm yàlla mais ku gëmul yàlla bon day sotti rek mel ne robinet bu teg bi yàlla buñ ko tëju takk ñu ko buum day jërërëri rek noonu la mel mbokk yi ñu ngi nii ñoom tey bi leen luut waxee ragal leen yàlla balaa mbugalam wàcc suñu kaw lan lañ ko wax naan mbugal mi ñëw loolu bu fekkee yaa ko yor ci sa loxo la nekk xoolal bu mu fanaana waaw yenn saa yi bu dee sama bakkan bi yaa ko yor xoolal bu ma yendu ndeysaan bu dee mbugal bi ci sa loxo la nekk yow luut li nga yor dëgg la waaye ubbil asamaan bi ubbil géej gi mais moom gisewul noonu nan la gisee mooy ngeen tuub yàlla baal leen haulaai mujrimun mujrimin min azulumati shirki wal kufr moom dafa xeex jahada li ixraaji haulaai mujrimin pour génne band yi ci lëndëm gi ñu nekk lëndëmu bokkaale ak lëndëmu réer gi ñu nekk pour indi leen ila anwaari tawxid yóbbu leen ci leeru tawxid ci leeru kennal yàlla leeru jaamu yàlla leeru topp yàlla leeru bëgg yàlla tabaraka wa taala wal iman isa bihim tubi ala qulubihim waaye moom ban mbetteel la am lan moo ko dal moom luut mooy ñi muy waxal yëgul ne yàlla dafa kaste seeni xol yi yërmande yàlla dootu ci dugg jàngeen ci alquran yàlla mu ne ci suratul baqara xatama allahu ala qulubihim ñii yàlla dafa tëj seen xol jàngeen ci suratul baqara ba tey yàlla mu ne summa qasat qulubuhum fa hiya kal hijaara aw asaddu qaswa am na ci nit ñoo xam ne seen xol yi dañoo wow ba mel ni xeer wala nga ni moom moo gën a wow xeer sax jàngeen ci quran yàlla mu ne kalla barraana ala qulubihim ma kaanu yaksibun ñii bàkkaar yi ñu doon def moo tax xol yi dem ba xomaat yàqu bàkkaar day xomaatal xol len du saasam toog na ba càgg mu ne leeral leen xol yi saaba yi ne ko lu ñuy leerale xol yi mu ne jàng alquran ak ziyaare ji bàmmeel yi day leeral xol booy jàng alquran ba càgg léeg-léeg nga yegg ci aaya boo xam ne fii sa xol du ko mën a résister sa bët du ko mën a téye rongoñ yi tuuru xol bi lemu wa iza tuliyat alayhim ayatuna zaadatum imaanan gis na fàttaliku dee day tax sa xol bi nooy luut alayhi salaam li ko yàlla na too mooy ñi mu doon waxal seen xol yi ñoo wow dëgër këcc ndax bàkkaar yi ñu doon def falam mi yaqbilu ayu sababin min al asbaabil hidaaya nanguwuñu benn porte ci porte yu baax yi ci buntu njub yi nanguwuñu benn nanguwuñu déggal lu dara dara yenn saa yi dañuy gis fii tey jullit boo xam ne dina julli mais bandi la day julli di naan day julli di sàcc day julli di fet day julli di des saa gis koo xam day góorgóorlu di woor waaye day def lu bon xam nga am na sax lu benn bu mu def ñii nag dara ci lu baax lañ nanguwul da lépp dañoo làng lu bon rek allahu akbar amiyatil absar bët yi gumba na an ruyatil haq bët yee gumba pour gis dëgg wa amiyatul qulub an qulubil huda an qubulil huda xol yi daal di tëju kastewu tëju ne dootuñu nangu lu baax dootuñu nangu njub falamma raa lut alayhi salaam minhum maylan an taatillahi xawafahum baasallahi wa adabihi ba leen lut xoolee nag gis nga ñi dañoo jéng dañoo bañ lépp lu baax lu bon rek lañ bë bëgg mu tiitloo leen mu commencé di indi aay yi nga xam ne peut-être buñ ko déggee seen xel dellu si ci yàlla mu commencé di leen tiital di leen ragalloo di leen bàyyiloo xel yàlla waaye loolu yëpp dayo ko sonn gaa yi seen nopp yi fat seen xol yi tëju seen xol yi gumba ne duñ dégg mu ut yeneen système jaar yeneen yoon loolu olof yi naan sébb bu tax a tàkk nu nekk la ñuy def pour mu tàkk waaye amul résultat côté bu nekk jaar na fa yoon bu nekk jaar na fa waxin bu nekk wax na ko waaye mbir yi lànk tëju qaala taala borom bi di ñu nettali sax ni nitam yi meloon ci tëju ci fermé wu ci lànk bañ a déggal yonent yàlla nuux yàlla mu ne fa ma kaana jawaaba qawmihi illa an qaalu ittina bi azabillahi in kunta min alsaadiqin dégg ngeen aay fa ma kaana jawaaba qawmihi nekkul tontu nitam yi ci lu mu baax li yëpp muy def tontu gi ko nit ya tontu nekkul lu dul illaa lu dul an qaalu nee nañ ittina bi azabillah bu dee yàlla yoo la jox caabi mbugal yi ubbil mais loo ñuy yërëme ubbil affaire bi ndeysaan ittina bi azabillah in kunta min as-sadiqin bu dee li ngay wax dëgg la yow yonent dëgg nga yàllaa la yónni indil mbugal mi est-ce que ay nit yu baax lii lañ war a wax nit yu gëm yàlla lii lañ war a wax ah mbugal yàlla xëjul ci nit waaye nit mooy yàqu ba mbugalum yàlla ci moom day mel ne léeboon ak lëppoon suñ koy wax du ko gëm te yàlla mbugalam xejul ci àdduna yàlla subhanahu wa taala waxuma la mbugalam mais benn ci mbugalam yi rek xejul ci àdduna benn benn misaal dong laa jox xoolal sedd bi di waaj a ñëwam su ëppee ñu jóg da nga gis ay nit dee tàngoor bi ñuy jóge su ëppee fu mu jëm da ngay gis nit dee ngelaw lii su ëppee fu mu jëm day gis ay nit dee léegi bu yàlla boole woon yëpp nag te yi benn rek yenn saa yi mooy ñëw même ndox mi di wàcc taw bi wala fan yi am na benn dëkk ci pays tubaab yi réew ñu weex yi siin la xaw ma Thaïlande wala fan yi niñ sonnee amatuñu fu ñu dëkk amatuñu ñi ngi sonn te ndox kese la te du dëkk ba yëpp de benn parti la ci dëkk bi fan yee Amérique la woon nga benn ngelaw benn parti temps yële passé Haïti la woon tremblement de terre xoolal ba dañoo dem di leen wàllu ñu jël seeni nit indi fi ñu jóge fa avant Indonésie la woon ak li ko wër ñaata pays ñaata nit ñoo dee ñaata nit ñoo yàqu ay ay ay matériel ñoo yàqu te loolu lu ndaw rek la géej gi la yàlla jëloon tuuti rek géej gi ay militant daal di koy sànni ci biir dëkk bi téyewaat géej gi bu ne yàlla ne woon géej gi demal rek nag ba faw bul taxaw te géej kese la ko wax ah moo tax ma leen mbugalum yàlla xejul ci ay nit te yàlla lu mu ciy def du boole lépp bis bu koy boole mooy yowmal qiyaamat borom xam-xam yi dañuy wane dañuy wax phénomène ni àddina di tukki xam ngeen àdduna bi bal la al ard kurewéetu shaq lu ngeen jàng ci géographie bal bi la terre est ronde, rond ba pare day tourner mais tourner bi muy tourner dafa am limite dafa am ay secondes wala ay minutes lu muy tourner gis ngeen vitesse boobu bu ko yàlla yokkee luy xew léppay déplacé lépp fu mu taxawoon day day daal day dem su ko defee léppay jaxasoo li tooyoon day jaxasoog li wow li taxawoon day daanu lu ñu sampoon day daanu lépp lu njëkkati woon day màpp su ko defee àdduna daal di tukki bu ngeen dégg yàlla mu ne wa jumi ash-shams wal qamar dañuy exploser jant bi ak weer yi jant bi weer bi ñu ëpp suuf si bu ñu exploser ñoom ñaar àdduna daal di tukki kon mbugalum yàlla xëjul ci ay nit moo tax doomu aadama war naa mën a rus wala mu téye làmmiñam naan itina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin bu dee yow la yàlla jox caabi mbugal yi na robinet bi ubbeeku comme li ko Sénégal yi di defee yenn saa yi nga dégg naan boo dee yàlla towal doy bu dee yow yaa yàlla indil asamaan si daaneel waaw man li ñuy li ñuy def dañ koy def waaw wala boo dee yàlla téye sa àjjana saa yi nga dégg wax yooyu kon waxu ceddo yooyu ceddo yi doon wax démb yéeféer yi tey jullit yi ñoo koy wax loolu moo ci doy wax jullit yi ñoo koy wax tey te démb wax yooyu waxu yéeféer la woon tey ay jullit di ko wax ixwatal iman ba gaa yi waxee loolu nag ne yow luut bu fekkee mbir mi yow la ko yàlla jox indi ko qaala rabbi nsurni alal qawmil mufsidin mu ne yàlla ñaan na boroomam yow yàlla maa ngi lay ñaan nga dimbali ma nga yónnee ma sa ndimbal indi ko ci kaw tooñkat nit ñi nga xam ne ay tooñkat lañ saala lut rabbahu an yansurahu mu ne yàlla dimbali ma ala haulaai alqawmi almufsidin ci nit ñi nga xam ne ay yàqkat lañ wa yuqia bihim aladab alalim yàlla daal di wàcce seen kaw mbugal mu métti wa talaba minhu an yajziyahum ala kufrihim wa inaadihim nuut sàkku ci yàlla tabaraka wa taala ne yàlla fayal ñi seeni jëf lan moo doon seen jëf mooy kufru weddi yàlla wa inaad mooy féttéeru dëgal bopp réew yàlla luut daan ne yàlla fayal ñi seeni jëf ku nekk daal la nga jëf fay ko ko wa yuaxibahum ala bagyihim wa fujurihim mu ne yàlla mbugalal ñii ndax gaw gu ñu bew ndax fuuy gu ñu fuuy ndax reew gu ñu reew fa hum addaau lwabil allazi yaxaafu intishaaruhu lu ne na yàlla ñii musiba lañ soo leen bàyyee ñu continuer dund li ñu nekkee day tasaaroo àdduna day yàqu jamono bi yàlla doon wax ak luut ci mbirum góor jigéen ne ko luut naan yàlla boo ko fi boo leen fi bàyyee àdduna day yàqu ban ban siècle la woon ban at la woon ban année la woon ah affaire yi yegg si fii tey te ñooñu dañ leen a beenoon ñoom ñëpp mais xoolal ni mu wëree waat àdduna suñ ko fi bàyyi woon kon àdduna bi nu muy mel lan yàlla bàyyi woon ñuy dund reyu leen kon àdduna bi góor jigéen ñi fi mais maa la saf terewul li leen yàlla alak lépp terewul des nay benn benn ba tey ci Sénégal sax yéen a ngi dégg ñu ne góor jigéen yi ngi fi yéen dégg ñu ne ay góor jigéen yi ngi fi di ko bàkkoo di ko bàkkoo kontaan ci trop waaw man li ma nekk man maa ngi ci sant yàlla den saa nga dégg ko wax ndax yóbbu naa ci sama yaay màkk yóbbu naa ci sama papa màkk maa ngi suñu kër waaw Sénégal loolu moo tax mu garaaw mooy yow li nga nekk lu mu bon bon araam maadaama yaa ngi ciy defal waa kër gi paa beeg meer beeg kër gi kenn du wax li ma benn chauffeur taxi waxoon temps ya passé mu yeb ma ci oto may defe benn émission RDV mu may wax ñaari góor jigéen yooyu ñu jàppoon temps yële passé te kenn ki nekk chauffeur taxi mu ne ma maa ngi moom ñoo bokk garage ñuy waxtaan ba continuer mu ne ma dëkk naa xale bu jigéen boo xam ne buy jaayi boppam maanaam buy dem ni timis solu bay dem day ànd ak yaay ji ñu jël taxi bu taxi bi demee tuuti ba sori koñ bi yaay ji wàcc xale bi continuer maanaam buy dem day ànd ak yaay ji waay ji da koy jéem a masqué di ko nëbbal comme mu ngi ànd ak moom am na fu ñuy dem kon du defi lu bon yaay ji bu demee ñaari mètre ba nëbb koñ bi taxi bi gaare yaay ji wàcc xale bi dem moom yaay ji tourné waat dafa jëndal yaay ji portable buy ñëw guddi fajar xam nga dafay lëndëm kër gi day tëju day woo yaay ji kër yaay ji yeew allo mu ne ko maman maa ngi ci porte bi yaay ji daal di ñëw ubbi mu daal dugg taxi baa ngi waaj a yegg si yegg ubbi bunt bi jege si ñëwal ci tali bi jël si ma taxi baa ngi waaj a jege ci kër wala lool pourquoi maire boobu nangu loolu c'est parce que doom ji am na 2000 3000 4000 5000 yu mu koy jox par jour ndeysaan loolu moo tax Sénégal day yàqu lu bon li ngeen di gis li lépp ba ci làmb ji ñi nangu seen doom yi nekk ay mbër yëpp xaalis kese la lépp lu ngeen gis fii doomu aadama di ko def ci lu bon ñëpp nopp ci xaalis bee tax sëriñ ñi sax li tax ñu nopp ci parce que taalibe yi dañ ciy joxe ci àddiyee lu bon lool wala duñ ko wax waaw kenn du ko wax ñaata nit ñoo fi nekk ci lu xaraam di gàddu lu araam loolu di di ci di ci joxe àddiyee nit ñi noppi ñaata chaque jour nga dégg man dégg naa fi benn waay boo xamante ne benn jumaa ju mag mu jëndal ko ay matériel ñu naan sono bi mu fi indi amul ci àddina bi sono ci lu xaraam lu xaraam nga jënd ko sonorisation yëpp ci jàkk lu xaraam inna allaha la yaqbalu inna allaha laa yaqbalu illa taahir inna allaha taahirun laa yaqbalu illa taahir yàlla dafa laab du nangu lu dul laab yonent bi nee na kullu maalin nabata ala xaraamin fannaaru awlaan bépp alal boo xam ne cosaan bi dafa araam safara moo ci yey safara moo ci yey même gis nga boo jëlee alal bu araam nga demee ko màkk soo ne labbayka allahumma labbayka kaaba gi ne la laa labbayka la ci jël alal bu araam demee ko màkk mi ngi mel ne saw ba pare laaw dem àll ba pare laaboo sa saw dem cabine ba pare jël say saw laaboo noonu la mel setoo dangaa gën a taq tey alal ju araam ci biir suñu dëkk suñu société noonu la mel c'est parce que nit ñi olof yi dañuy ne ku ëmb sa sanqal ëmb sa kersa olof bu leer la ku ëmb sa sanqal ëmb sa kersa mbokk yi luut ñaan yàlla ne pour yàlla jële fi ñii parce que dañoo bon parce que dañoo feebar wéruñu nan la góor tiime ci moroomu góoram di sëyeeg moom fi muy demee àll ba foofu lan moo fay génn lan moo nekk foofu lu fay génn sa awra bu fa duggee lan la fay nekk su génnee lan lay xasaw foofu loo fay bànneew lu fa nekk waaye sal xaraam bon alko xam ne nit bu fekkee nit dana silwise na kon du alxu du hasard yàlla naan su maradan naahu asfala saafilin loolu yëfu xar la bàyyi ma mooy fekk bàyyi ma moroomam taxaw mu yëg ci kawam yooyu yëfu xaj la du yëfu nit nit ak xel ni ko yàlla may jumtukaay yi yàlla may nit yëpp ba yàlla ne wala xat karram naa bani aadam doomu aadama waroon naa feesu fee weesu yàlla naan ko summa radannaahu asfala saafiliin ak xel mi ko yàlla may lan la xel di jëriñ lan waaw lan la xel di jëriñ soo demee nag ba du xalaat loo trop yow alku nga loolu ngeen jàng ci alquran yàlla mu ne waa safara bu ñu duggee safara benn critique la ñuy am ci seen bopp xam nga lu ñuy wax law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashaabi saxiir ay ñun buñ doon dégg di xalaat kon tey duñu dugg safara lan moo leen fa dugal kon ñaar la mooy ñàkk dégg ñàkk xalaat law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashaabi saxiir lu ci yàlla teg faatarafu bi zambihim reconnaître nañ koy seeni bakkaar xam ne li leen ko waral li leen dugal safara mooy ñàkk dégg ñàkk xalaat waaye amatul njëriñ fa suqan li ashaabi sair mbokk yi ya Luut nee na yàlla ñii boo leen fi bàyyee yaisu fil ardi fasadan dañuy dund ci suuf yàq ko dañuy baare sa yoon ku war a baax sax danañ la ci dugal dañ la génne ci mbaax gi dugal la ci mbon gi ndax seeni nopp tëx na ci dégg lu leen yóbbu ci yoonu dëgg baarewu na ci lu leen di yóbbu ci njubal yàlla tabaraka wa taala istajaaba allahu du'aahu wa xaqaqa su'aalahu wa ba'asa malaa'ikatahu ila ahli hadhihi alqarya azzalimi ahluha liyunzilu bihim ma yastaxiquna min iqaabihim borom bi subhanahu wa taala nangu na ñaanu nuux luut borom bi nangu na ñaanu luut mu dëggal li ko luut ñaan lan la ko luut ñaan mooy jëleel ñi ci kaw suuf yàlla yónni ci ñoom ay malaayikaam ci dëkk boobu tuddoon Sadum dëkk baa ngi tuddoon Sadum dëkk bi nga xam ne ñi fa dëkk ñi ay tooñkat lañu woon yàlla ne malaaka yi wàcce leen mbugal ci dëkk bi bu leen bàyyi dara lépp na ngeen ko mbugal malaaka yi wàcc nañ jaar ci yonent yàlla ibrahim alayhi salaam di ko nuyu ji malaaka buy wàcc ci kaw suuf day yor jëmmu nit jibril daana ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na benn jëmmu sahaaba bu mu daan indi kan la ci sahaaba yi dihiyatul kalbi moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan jël daa jibril alayhi salaam moom la daan jël melokaanam keroog ba malaaka yi wàccee ci ibrahim ibrahima alayhi salaam gis leen xamu leen mu daal dem songu benn yëkk jàngoon nañ ko ci histoire bi dootul jar ñu koy bamtu ba mu leen joxee lekk-lekk ñu mu tiit mu xam ne ñi duñu ay nit gan goo xamul nga dem jël nag yëkk wàcc ba mu ñor nga teg paaka fursa teg mu tardu poobar soble jimbo loo ci tegu mu gis seen loxo laalul affaire bi mu tiit gars yi ne ko laa taxaf bu ragal ñun ay yonent lañ yoo xam ne yàlla ñu yónni pour ñu mbëgali ji waa kër Lut Ibrahima ndeysaan ku baax la mu commencé di discuter ak malaaka yi pour malaaka yi xaw a bàyyi affaire boobu amaana gaa yi tuub lan la ko malaaka yi wax Ibrahima noppalal sa bopp ñii xam yàlla xam ne ne dootuñu baax moo tax yàlla ne dañ leen buggal incha allah mbokk yi fii la ñuy yem ba àdduma bii di ñëwaat incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah